dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ndax yéen a ngi fàttali ko tentative bi nga xam ne Ousmane Sonko ma ngi ko doon wax fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ci àtte bi nga xam ne moo doon dox digganteem ak Mame Mbaye Niang ndax Ousmane Sonko kerew ba mu wuy ji ñol ñol ji nga xam ne moo am digganteem ak takk der yi njiitul Pastef dafa waxoon ne dafa am benn liquide boo xam ne moom la ñu ko sottee loolee sax moo taxoon Ousmane Sonko mujjee ji dem teere ji ci ab clinique journal bi nee na Ousmane Sonko nag dafa waxoon dañu ko sotti ab liquide liquide boobee nag ak fi ko sottee moom la Ousmane Sonko jëloon yóbbu ko ci bitim réew ci ay laboratoire ngir nag ñu xoolal ko ba xam dañu ko bëggoon a fàtt waaw wala résultat yi génn na bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko njiitul Pastef daat nay wax ne résultat yi li nga xam ne moom la doon wax Ousmane Sonko nee na dañu ko bëggoon a fàtt la résultat yi daal wane waaye nag mbir mi moom Ousmane Sonko dafa tuumaal ñi nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yi maanaam ñi nga xam ko fa moom Ousmane Sonko daan nay wax ne résultat yi génn na te xam ne moom la confirmé maanaam tentative d'assassinat mbir mi nag du ma ko bàyyi mu sedda dinaa ko yóbbu fa mbaxana doonee benn ca bitim réew wa yéen kay gi délibération bàyyi mbir moomee wax ci Sophie Gaye mi nga xam ne moom ab faux docteur la moo nekkoon ci internet bi ci réseaux sociaux yi di def ay consultation médicale moom Sophie Gaye mii teg na ñu ko loxo sûreté urbaine moo ko jàpp te nag Sophie wax ne amul benn diplôme doon na jéem a commencé formation ci lu jëm ci wàllum fàcce waaye mujj ko àggale la doon defa ci na ñu ko loxo moom suufi kay yéen i kaay gi ko di jenxëy duñu xibaar naan ñu Abdoulaye Diouf Sarr daat nañu koy nommé directeur général du fonds souverain d'investissement stratégique maanaam fonds si sa bi nee na économiste bii di Abdoulaye Diouf moo daal wutu Pape Demba Diallo ci fonds si sa yéen i la soloy xëy ko dëggal nekk fi nekkoon ay jamono ministre bi ñu dénk wàllu wér gu gi daat nañu koy nommé directeur général bu fonds si sa yéen i di Dik News xëy dañu xibaar naa ñu malade yi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital bu Saint-Louis ak hôpital bu Podor bi nee na a ñoom amuñu sax li nga xam ne mooy scanner loolee moo moo tax malade yi nga xam ne ñoo nekk ci ñaari hôpitaux yooyu maanaam sonn nañu ba maara détaale journal bi nee ñi nga xam ne ñoo soxla scanner te nekk ci hôpital bu Saint-Louis ñoom nag dañuy dem bu Louga ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bi nga xam ne instant sax mën na ñoo wax ne dafa daal di débordé bu Ndiouma amul scanner ñi nga xam ne nag ñoo fa feebar te soxla scanner nekk ci hôpital bu Ndiouma ñoom dinañu dox lu toll ci quatre ngir nag dem wuru hôpital bu Saint-Louis loolee sax tax na ñi nga xam ne maanaam ñooy médecins yi yenn faj dañu koy daal di reporter yéen i kaay gi di ci Sénégal bi ñu defee ab xayma ci ñi nga xam ne ñoo faatu ci Covid bi ak ñi faatu ci wàllum sida ak ñi nga xam ne ci accident la ñu bi ñu ko xayma ëpp na 2000 morts ëpp na ñaari junni nit ñoo xam ne ñoo ci faatu yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu sa diwaanu Ziguinchor foofee nag Ousmane Sonko daan na waaye nag il faut askan wi nga xam ne ñoo yeewoo sigi coor ñoom ñëpp daal di ciy dugal seen loxo maanaam daal di participer ndax nee lu jëm ci wàllum njàng meeg mi éducation bi ak wàllum wér gi yaram ak marché yi defaraat kook stade yi jardin yi financé ndaw ñi ak jigéen ñi loolee xaalis ci boppam la laaj te ñi nga na ne ñoo yeewoo jamono ji sigi coora maanaam kenn ku nekk moo ci war a jàpp Ousmane Sonko nee na askan wi nag il faut ngeen nangoo nga xam ne mooy impôt ndax loolee nag lu am la te nag impôt joojee ko fayee maanaam ci yéen lay dellu si waata Ousmane Sonko nee Ziguinchor yéenekaay gi di la point xëy duñu xibaar naan ñu Sénégal yàgg naa am ay jafe-jafe ci jëm ci wàllum inondation moo tax directeur général bu ONAS di Mamour Diallo daan nay li nga xam ne mooy ay opération ngir nag jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sénégal yi ko doon am ci jëm ci wàllum yi mën a di saafara woo loolee moo tax mu ne xob ko bala ngay lakkale am ndaje moo xam ne amuloon na ko ngir nag lancé yooyu la a sekkarti maanaam Mamour Diallo directeur général bu ONAS daan nay wax ne ñoom am nañu yaakaar ngir nag am ci ay résultats waaye nag ñaan na askanu senegal ñu bàyyee jël mbalit mi di ko sotti ci canal yi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu njiitu réew di président Macky Sall jamono ji neexul ba neexul waaye Macky Sall nag bëgg naa dialogue Macky Sall bëgg naa dialogue ndax nag jamono ji moom Macky Sall ma ngi insister ñëw leen ñu dialogue ñëw leen ñu waxtaana journal bi nee na en tout cas daal ginnaaw korité nga xam ne président Macky Sall waxoon na ne ñëw leen ñu dialogue démb ci conseil des woote waat na woote jolo na jaloka journal bi nee na Macky Sall neexul ba neexul waaye jamono ji nag bëgg na ko ma waxtaana la yéen a kaay gii du l'observateur ñu xëy fekk fa Mamadou Diop Decroix nee na nag dem toog ak Macky Sall jàkkaarloo ak moom ci biiri bëta waxante dëgg loolee mu gën fuuf nekk sa biti di sànni ay traka yéen a kaay gii la la mandat xëy dañu xibaar naan ñu yu Ousmane Sonko yi nga xam ne ñoo nekk sa diwaanu Espagne sam Madrid ñoom nag daan nañuy lancé am mouvement boo xam ne sàmm Sonko sunu yaakaar la ñu ko tuddee ñoom nag nee nañu jamono ji daal maanaam duñu nangu benn yoon noonu Ousmane Sonko ñu koy faagaagal ñoom maxtaar Diaw ak ñi mu àndala ñoom nee nañu œil pour œil dent pour dent ñaawlu nañ bu baax a baax arrestation arbitraire yi nga xam ne jamono ji def ñu ko ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñoom Makhtar jaw ñoom nag nee nañu jamono ji daal li nga xam ne moo jot dem nag bindu ji ci liste électorale yi yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora xëy ñu xibaar naan ñu journaliste Babacar Touré daal nañu koy garde à vue yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 jamono ji gars yi ñoo ngi manœuvrer dara leeragul ci mbir mi Ousmane Sonko jamono ji nag am na lu ko topp Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade ñoom kenn am ne séegule na te nag Macky Sall jamono ji ba léegi xamaguñu lenn ci candidature am Idrissa Seck daal di fël yéenekaay gi di bés bi xëy diñu xibaar ñu bureau assemblée nationale daan nañu koy convoqué ni ko suba ci ajuma ji journal bi nag nee na ci table président bu assemblée nationale dana fa fekk ay question d'actualité ay question orale ak ay commission d'enquête les éco nee na ginnaaw ñetti weer yoo xamante ni assemblée nationale demoon na ko ay vacances vacances ya jeex na journal bi nag daal nay dellu si les ci engrais bi nga xam ne moom lañ fi doon tudd engrais boo xam ne presque man nag 4 milliards journal bi nee na Aziz Ndiaye mi ngi siy tudd ak baayam diñ siy tudd ak frère am Masana mi nga xam ne moom lañ siy tudd ak Ali Penda jamono ji nag maanaam ñoo ngi ci guddi gu bat séddagul yéene kaa gi nee na nag procureur defoon na ab réquisitoire ngir nag daal di sàkku ñu daal leen di inculpé waaye nag ba léegi nag fourage dali xëdde na yéene kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naan ñu combat Ama Baldé ko juróom-ñeenti fan ci weeru sulet suba gi lañ koy daal di finaliser